fukki waxtu tek ay simili ci Sene Diaspora jërë ngeen jëf mbokk yi ci and bi daleen ak jam ci xibaar yi fukki fan ak jurom ñent ci wéru août ñu ko ak fateliku génnuk aduna. bu Doudou Ndiaye le Rose tey ji la fàttaliku bis bu mu ngi le 19 août 2015 ci ndakaaru ñukay fateliku 19 août 2022 mom nak bi mi génn aduna mu ngi 85 ans Doudou Ndiaye n'ekon Rose figure emblématique ci culture Sénégal ndaxte am na ci ay raaya yu ne moom nag ci famille géwél la jóge doon royukaay ci ñu bëri ci wàllum percussionniste ñu ngi ñaar yàlla yeesal yërmande ci kawam te xaare ko àjjana si ñu àddu wax ci coowal hôpital La Dantec comme ni ngeen ko gisee ci ay bés yi ñu génn hôpital bi dañ ko nar a tëcc ngir euh, defaraat ko loolu nag suscité pas mal de polémique ak coow ci réew mi ak euh, ña fay liggéey tey nag euh, ñu ngi ñuy xamal benn xibaar ki ñu ko xamal mooy Mané Ngom di responsable syndical bu hôpital boobee mu ngi ñuy xamal ne benn xale bu góor moo ñàkk bakkanam moom nag dafa ñëwoon ngir def li nga xam ne mooy opération ca bloc opératoire ba ba mu ñëwee nag fekku fa kenn ñëpp daal di dem di jël daal di koy yóbbu ci beneen hôpital ci yoon bi la ñàkkee bakkanam ñoom syndicat bi nag ñoo ngi dëggal ne indi nañ huissier ngir mu def constat ngir dëggal la ñàkk bakken boobe loolu nag dina gën a indi coow ci hôpital la Dantec tey ci xibaar yi njëgu soble si daal dina yokku yokk bu jéggi dayoo fële ca dëkk bu tedd ba di Touba saabu 25 kilos bi nga xam ne 7000 francs la doon jar daal dina dem ba 50000 francs loolu nag RFM moo ñu ko xamal kilo bi noonu nag ci la yokkoo dem ba 1500 francs jàpp 2000 francs ki nga xam ne nag mooy jëwriñ bi ñu dëkk wàllum commerce di Aminata Assome Diatta dina amal benn jàkkaarloo ci kanam ak taskatu xibaar yi ngir indi leeral ci yokkute boobee.

ñu jéxalé mbokk yi ak euh, tagat yaram wax ci coupe du monde 2022 bi nara am feulé ci Qatar ci mois de novembre japp décembre ab ciow nak daal dina jip digënté RTS ak imedia euh, ñom RTS ci ab bataxal dañu fësal ni ñom rek ño am exclusivité bi ci walum retransmission ci coupe du monde bobé imedia addu ci wax ni ñom tamit am nañ seeni droit ngir mëna tek coupe du monde bobé droit yoy ñong ko jëlee ci New World TV di ab groupe basé feulé ci Togo ñom nak ñoy détenteur des droits de distribution de la